nga xam ne euh, ci la ñu xaañoon Garga Mbossé ba mm. combat mujjul am mm. mais violence bi daal wàññeeku na bu baax fans club yi ñun communication bi nga xam ne def nañ ko ci ak sensibilisation bi mm. jur na effet lu bëree bëri ci wàllu violence ñu ngi koy xeex mais dellu na ginnaaw bu baax a baax a baax jamono yi. Malick wax nga ko sànq yow yaa yor euh, desk desk sport bu Sen TV tey bu ñu wax ci wàllu football. parce que football aussi euh, dans nañ toog stade ma la gis la ngay reporter bu baax wax deug yalla machallah mali tay gis nañ ni euh, Alain Giresse di entraîneur bi ñak na convoqué Demba Ba ak isiar Dieng nekkoon ay cadre yo xamanteni dans daan nañ wax naan muy sax ñak ci équipe nationale mu mujj responsabilité bañ leen convoquer convoqué ana loolu yow en tant que chroniqueur en tant que reporter euh, football aussi nan ko meuna jangate bon loolu l'entraîneur xëy na moom am ay raison joxe na ay explication yu nga xamné ne euh, buñ doon wax ci ci français c'est vraiment tiré par les cheveux mm. parce que du lu nga xamné ne mën na convaincre ñun ñu nekk ay observateurs ci mm. euh, ci walu euh, tàggat yaram na ci walu football mm. parce que Demba Ba lu ñu mun ci wax ak saison bi nga xamné def nako ak son club Chelsea tay mëno tànn fukki footballeur ci Sénégal te boole woo ko ci ñi nga xam ne. wala ci Afrique ñoo gën a xereñ. Mm-hmm. te tey euh, un entraîneur son credo mooy lan mooy jël les joueurs les plus performants du moment. Mm-hmm. bu fekkee ni ci critère boobu la ñuy tànne chaque joueur bu nga xam ne il est régulier dans son club. Mm-hmm. il fait des performances je crois que tey su bu fekkoon ci critères yooyu rek la ñu taxaw pour tànn. Demba Ba kenn waru ko mën a jëlee ci équipe bi. c'est un garçon talentueux même boo koy jël te doo ko utiliser yi tamit sax mën nañu jàpp ne xëy na c'est un choix tactique bu tax jëluloo ko. Hmm. mais ñàkk ko woo man jàpp naa ne Alain Giresse foofu def na fa tooxi def na fa erreur bu nga xam ne euh, l'avenir nous édifiera. Hmm. de toute façon Demba Ba est un garçon. talentueux mm. qui brille de mille feux dans son club mm. et compte tenu de ses performances en club, il n'y a pas de raison pour ne pas le Moi, je suis totalement contre cette décision du euh, de l'entraîneur, entraîneur. Hmm. li nga xam moment à mooy Il Giresse. Hmm. Issiar comprendre parce que dernier match contre la Guinée. Hmm. de jël poids bu nga xam euh, tey lañ ko doon doyee ak lañ doon xaar ci moom indiwu ko muy la percussion ak vitesse bi nga xam ne moom la ñu xam ci moom mu koy mm. apporter en équipe nationale mm. euh, bi mu demee dans les pays arabes là ba léegi mm. gis nañ ni dafa jël un embonpoint maanaam dafa jël poids bu nga xam ne vitesse am ak percussion bi nga xam ne moo doon force am xaw na wàññeeku tuuti donc Ichar sur le plan de la performance mën nañu njort ne loolu moo tax waa ji jëlu ko mais le la non sélection de Demba d'accord d' accord ma observateur yu bëri aussi ci d' parce que pour nga wax ñu ci lu ñu convaincre dina xaw a doy waar. Hmm. ñu bëri aussi dañu wax naan euh, équipe génération bu ñu xool tey amuñu amour ci mayo naka équipe nationale par rapport à ak génération 2002. non man euh, pour man loolu c' un faux débat. Hmm. parce que cette même génération là bu ñu fàttalikoo. Hmm. ñoom ñoo ñëw jouer les éliminatoires kan bi nga xam ne moom la ñu waroon jouer jouer Guinée équatoriale. sur l'ensemble tous ces matchs-là nous avons gagné jël un parcours extraordinaire mm. moment boobu kenn euh, waxul ay affaire au patriotisme a affaire au manque d'engagement ce sont ces mêmes joueurs ñoom ñoo dem bata tey ñu éliminer ont ak éliminer, éliminer match yëpp ñu 2-1 Il mm. yi a une possibilité jouer pour la France. Hmm. amoon une possibilité de répondre à l'appel de la patrie. Hmm. mais man nous ma leen sénégalais nous sommes leen sénégalais. nous sommes leen doon sénégalais je crois que amouru Sénégal ak am ay wajur ak ay parents yu nekk Sénégal moom moo tax ñu Sénégal. Hmm. donc ce débat sur les binationaux c'est un faux débat et c'est un débat dangereux dangereux parce que nous ñun ñooy toog fii Sénégal gis benn xale bu sant nekk ci championnat européen yi di ko toj ñu ne fédération bi lu tax mun leen jëli xale bële euh, utal ko nationalité sportive pour mu ñëw football équipe nationale. Hmm. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Hmm. ce ce ce débat c'est un faux débat. Hmm. xale yi kenn gënu leen bugg a gagné. ñoom ñëpp bu ñu sañoon tey dañuy ñëw jouer pour seen réew jouer pour seen pour euh, pour le pour le peuple sénégalais am ndam. mais nag ndam moom euh, li koy joxe yàlla moom moo koy joxe et les réalités du football européen sont différentes des réalités du football africain. Hmm. donc il faut que vous paramètres soient en considération que nous waxtaan ak que nous pour nous donner le meilleur de max le maximum de même. déjà, hmm. yaakaar génération bi vous ñu en encadrer les bañ fragilisées, fragiliser. Hmm. mën nous valoir des satisfactions donc attention à ce débat. pour moi, c'est un faux débat quoi. mais est-ce que satisfaction aussi de pouvoir mettre ak euh, mettre entraîneur dans de bonnes conditions parce que nous nañ la sortie dernière fois mu est que ni sommes dans de bonnes conditions yu yakaron pour liggéey Sénégal. wa xam nga le football c'est un tout. Hmm. football environnement bi daf ci euh, état d'esprit bi ak euh, li nga ne condition de travail daf ci am hmm. donc peut-être Alain Giresse a na ben déception par rapport à ak euh, fédération bi nga actuellement en place. Hmm. donc nous wara yoré football bi wara mettre entraîneur bi dans les conditions optimales de performance loolu des na mais état bi moom joué na rôle hmm. parce que l' état rôle am mooy ñëw lépp lu nga xam ni jumtuwaay la wala condition yu baax ñu teg ci joueurs yi hmm. l' état ne doit absolument rien à l' équipe nationale hmm. équipe nationale condition yi ñuy nekk sax parfois duñ ko nekk ci seen club donc état bi lépp lu ko war def na ko avion présidentiel lañ leen di voyager loo bu ñu demee dañuy dëkk ci hôtel yi gën a baax ñu indi ñi nga xam ne ñoo leen di toggal Sénégal luñ koy jële bi ñu nangu kenn toggal leen Mm. mettre leen dans des conditions yi nga xam ne du ñu nangu sax ñun journalistes yi ñu jege leen. Mm. kon ci côté boobu amul dara lu nga xam ne joueurs yi mën nañ ko wax ci wàllu prime kenn waxatu ko prime yi nga xam ne moom la ñu diggee ak ñoom. Mm. ba la ñëw fubal wala bu ñu fubalee ba pare dinañ leen ko jox. donc l' état du Sénégal amul dara lu mu ameel équipe nationale wala joueurs yi wala encadrement bi. li ci des mooy. le football sénégalais est malade de ses dirigeants. Mhm. Que yi am ci biir fédération bi dafa bëri. Mhm. xëccoo bi ak kiyoo beeg ñaayoo bi ak kuréel yi. Mhm. dafa bëri te olof Ndiaye dafay faral di wax ne kuy naaw say dugg di ruus fa nga jëm dafa soriwul. loolu mooy suñu problème actuellement fédération bi fi nekk bi ñu jógee Bata ñi ci ëppoon solo nekk ay cadre ay vice président dañuy démissionné ku ci mel ni Louis Lamotte. ku ci mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak ñeneen. démissionné nañu conflit avec les arbitres avec Badara Mamaye Sène hmm. ñu dem jubale waat leen xam nga yooyu dafa ci li nga hmm. créer un environnement sain euh, euh, hmm. donc tey dem nañu ba ñàkk ay nit de valeur ci biir fédération bi hmm. ñeneen ñi fa des ay amateurs lañu pour gérer une équipe composée de professionnels hmm. il faut des dirigeants professionnels loolu mooy suñu problème je crois que à la prochaine assemblée générale nit ñi dinañu jël seen ay matuwaay pour mettre les dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut pour gérer l'avenir du football sénégalais donc loolu ci benn côté day fa mel ni day jox euh, El Ousseynou Diouf waa xam nga El Hadj xëy waxam moo dul neex. Mhm. na muy waxee moo dul neex. Mhm. mais boo càmbaree ay waxam lu ci bëri dëgg la. Mhm. lu ci bëri dëgg la lu sànni xeer rek moom moo ko tax a jóg. du bëgg a équipe nationale moom moo ko tax a jóg. mais loolu muy wax tey au fur et à mesure ñuy avancé. dañu koy gis. ay kuréel yi bari na xol yi juboo xol yi àndul euh, kenn ku ci nekk yaa ngi gasal sa morom kàmb. xiiroo beeg ñaayoo beeg mbiccoo mbaaloo bi bëri na mm. donc loolu tey dafay jox raison ku mel ni El Hadji Ousseynou Diouf effectivement mm. équipe bi aussi dafa soxla cadre bu nga xam ne dafa miin les compétitions africaines mm. même bu fekkee ni du football sax mu nekk leader moral ci biir équipe bi loolu moo tax ku mel ni El Hadji Diouf wala ñenn ñu des ci génération 2002 bi euh, ñu war leen mën a jël donc euh, je crois que loolu mooy li nga xam ne moom laa ci mun a wax daal El Hadji Diouf peut-être li nga xam ne moom lay wax noonu euh, lu am solo la voilà yaakaar naa ni euh, Malick euh, ñi ngi si euh, ñi ngi jeexal temps bi mais tey ana looy dénku nit ñi si combat bi nga xamante ne mooy am ginnaaw suba Balla bala Gaye 2 ak Tapha Tine yi maanaam non violence daañu koy faral di wax sa dernier moo si si combat boobu. waaw loolu daal liñ ci wax rek mooy nit ñi nañu ànd ak dal ànd ak dal mais également ànd ak yar dem ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm kenn ku ci nekk supporter sa mbër am nga ci droit mais amuloo droit yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ko ci mburu jàmbur amuloo droit yëkkati violence jëmale ko ci euh, ci ci askan bi wala boobu ci ñi nga xam ne dañu ñëw pour setaan seen euh, seen làmb hmm. tey ñaari mbër yi ñoom ñoo digaale li ñuy digaale hmm. ñoom ñoo ne contrat kenn ku nekk ni ñeme naa sa moroom hmm. kenn ku nekk ñu jox la avance yow yaay euh, tey may sa moroom xaalis ñoom ñaar rek ñoom ñoo tey am contrat ak promoteur bi bu làmb ji sàjjee bu ñu tëj barrière yi ba arbitre bi taxaw ni Balla Gaye pare nga ni Tapha Tine pare nga bu boobaa ñoom ñaar ku ci mën sa moroom nga duma ko ku ci mën sa moroom nga taan ko. Hmm. mais eh, mais ngir yàlla ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk altoppe yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fans club yi ak supporters yi nañu ànd ak jàmm euh, nañu ànd ak dal. Hmm. ànd ak jàmm amba la violence vive la lutte sénégalaise. Hmm. ci kër yi tamit ak ci foyer yi ak ci foyer yi jarul xuloo jarul xiiroo jarul ŋaayoo. je crois que làmb ji moom. ñaari mbir ñoom ñoo ko digaale la ñu digaale ak askan bi digaale ko ak promoteur bi dinañ remplir seen contrat. Hmm. li ci des nag ñu xam ne sport la rek ndam li mënul génn Sénégal hmm. Balla Gaye bu gagné Sénégal lay yem euh, ki nga xam ne mooy Tapha Tine bu gagné Sénégal lay yem. Hmm. donc euh, lépp suñu biir la ay adversaire lañu du ñu ay ennemis. lépp nañ ko def ci rafetal parce que Sénégal loolu lañ ñu xam Malick du ma la bàyyi te te la bàyyi aussi nga nga. nga nuyoo ak sénégalais nekk diaspora yi parce que aussi bëri nga fi soppe nga dénku leen dara parce que aussi diaspora bi euh, mën nañu wax ne ci ngeen bokk yéen ñëpp dañ leen di bëggee bu baax a baax. waaw dëgg la xam nga man dama naw ñi nga xam ni mooy sénégalais de l'extérieur yi ak fu ñu mun ci nekk. Hmm. ndax saa su ne man damay jël. Hmm. dem à l'extérieur gis leen ni nga xam ne noonu la ñuy euh, ñafee di daan seen doole. Hmm. te kenn ku ci nekk tey li nga xam ne mooy sa yéene mooy fa nga nekk nga réaliser sa. tekki mm. fa mu mën a dimbali sa njaboot mën a investir ci sam réew mm. donc ñooñu man dama leen a naw di leen wax ni ñu nekk rek nañuy fàttaliku ni euh, la ñu bàyyi ginnaaw fàttaliku ni njaboot la ñu bàyyi bàyyi ginnaaw fàttaliku ni ay am di jàmm ay soppe la ñu bàyyi ginnaaw mais mm. également ay noon la ñu bàyyi ginnaaw ndax nit ku nekk boo xalaatee ñi la bëgg xalaat ni nga xam ne sa ay noon lañu foo nekk war nga fa góorgóorlu dëppoo ak yoon liggéey jaamu yàlla te tamit loo am nga xalaat dellu si waat au mm. parce que réew mi dafa soxla ay doomam mm. donc ñoom ñëpp daal maa ngi leen di euh, encourager mm. di leen gërëm di leen di di leen gën a ñaax parce que dara gënul metti di fu nga xam ne sa ku sañoon di yeewu di jàkkaarloog sa ndey di jàkkaarloog sa baay di jàkkaarloog sa soxna di jàkkaarloog say ak say mbokk mais loolu tey li nga xam ne moo la tax a jóg dem bitim réew mooy daan sa doole mooy am jom donc ñoom ñëpp ay nitu jom lañu ay sénégalais lañu te sénégalais fu mu nekk

bu hmm. teew foofu saafonte ak la diaspora hmm. sénégalaise à mu seen émission dox ñu fi doon dalal gërëm si disponibilité bi bi nga xamante ni yombal nañu ko lool. di gërëm tamit euh, euh, les sports aussi euh, di na ma ci bi tamit di gërëm ñu di jox ba jëf.